للمنتقد ما يسر ci ndigalul sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke xalifab sëriñ Mbacke soxna Lo sëriñ Cheikh Diaw Mansour xalifa Baye sëriñ Diaw Mansour mbooleem njabootug Baye sëriñ Diaw Mansour waa daayira Tasudu mu nekk ren mu yemuk dimanche fukki fan ak ñeent ci weeru sunlier ñu war ko amale ca Dakar Touba ñaari tali ci devant yi sëriñ bi nee moo nga cay woo ñëpp te di ca sàkku seen teewaay rawatina daayira yi aju ci waa kër sëriñ Diaw Mansour mbooleem fu daayira nekk te aju ci kër gi programme ba nii lay demee amee bu nu xëyee daanañu amal njàngum alquranul karim xasida sikrullah salatu ala nabi teeru gan ñi dalal leen 14 heures ñu julli bernde 17 heures rajas njàngum kuréel fédération tasudu sixaar kër baay sëriñ Jom Mansour moo koy tëj cérémonie officielle bi sëriñ Abdoulaye Mbacke sëriñ Mortala ñoo koy def kadduk axi el xadim njabootug baay sëriñ Jom Mansour gi soññe bu nu paree sëriñ Jom njiital daayira bi tëj sëriñ bi ñaanal ñu tey yewi ليسلكن اليوم أنفع الطريق